bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi asalaamu wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi am mbégte toog ci jataay bi fas yéene tàmbali ay jataay yoo xam ni jataay yu li mu lay doon incha allah jataay yoo xam ni dañ koy tënk ci xamle ak gaaral li nga xam ni mooy al madahib al islaamiya madahib islaamiya yi nag bu ñu koy wax lañ ca jublu mooy al madahibul fiqhiya madhab yi nga xam ni madhabi fiqh la e, madhab yooyu ñu fas yéene cee gaaral e, ñi nga xam ni ñooy njiiti madhab yi ak ña nga xam ni ñooy ña ñooy fësal madhab ya seeni taalibe ak nan la mazhab yooya sosoog nan la màgge ba yegg fi mu yegg tey e, mazhab yooya it yan mooy seeni taalif ci biir mazhab yooyu bu fekkee ni am na ay école yu ca ne e, école yooya yan la ak école wu nekk ca école yooya lan mooy ay sam yan mooy ay jaglewaay yan la ràññee yeneen école ya ca des eh, bu ñuy wax it mazahibu islaamiya yi jubluwuñu ci al mazahibul arbaa faqat doonte nag la ëpp ci jataay yi ñoom ñoo ko ñoom lañ ko jagleel waaye du tee danañu junju eh, ci mazahib yooyu mazhab bu ne danañu am ak moom doonte benn jataay lay doon eh, ci mazahib yeneen yi nga xam ni mazahib yu jeexla yu raafla yu amatul waaye danañ ci def ay jàngat eh, bu ñu yeggee nag ba ci almadahibul arbaa incha allah mazhab bu nekk danañ ko jagleel ay jataay waaye nag eh, bu ñu fàtte ni ñu nit ay malikiya lañu loola tax na mazhab malik danañ ko jagleel ay jataay yu ëpp yeneen madahib yi mm. eh, ci malik ci boppam waaye ci rijaalu madhab bi ci seen bopp waaye ci téere téerey madhab bi Eh, dellu it ci madaris daara yi nga xam ni ñoo nekk ci biir madhab bi yooye danañ ci def ay leeral yu yaatu incha allah eh, loole yëpp it danañ ko teg ci laltaayug xamle luy madhab ak naka la madhab sosoo ak lan moo waral wuute yi am ci diggante aimma yi te seeni delluwaay doon alquran ak sunna ak ya ca aju waaye teewul ñu wuute lan moo ko waral yooyu yëpp incha allah moom la ñuy bëgg a def mu doon laltaayi jataay yi ci ndimbalal sunu borom jataay yi nag ñu ngi koy ànd ak sunu mbokk daara sunu mbokk taalibe di sëriñ Fallou Galass Sylla yal nañu sunu borom may tawféex ñu tàmbali ko ci jàmm ba mottali ko eh, ca nañ ko mébétee ci jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa